Euh, c'est juste une recette que je vous présente euh, qui sert à se défendre contre les attaques mystiques, contre les sorcières. Alors, non seulement ça va vous protéger, euh, Inch'Allah, et aussi ça va détruire tout ce qui est sorcellerie sur votre corps, Inch'Allah. Et si vous l'utilisez après, Inch'Allah, vous allez prendre les ingrédients, euh, quelques ingrédients euh, qui compose cette main mystique et tu vas la porter, Inch'Allah. Euh, et toute personne qui osera vous attaquer, Inch'Allah, une autre fois, euh, il tombera dans son propre pièce Inch'Allah. C'est-à-dire que cette sorcellerie qu'il essaie de faire et cette pièce qu'il essaie de vous tendre, Inch'Allah, il tombera sur, sa propre, sur son propre pièce inshallah alors, je vais m'exprimer en Wolof, Inch'Allah. C'est un recette tellement dangereux. Euh, fabriqué, Inch'Allah, à partir des feuilles de piment et aussi euh, euh, des racines de Pofton. Je ne peux pas connaître le nom. Alors, euh, c'est-à-dire pommier de Sodome. Je peux dire c'est pommier de Sodome, les, les racines du pommier de Sodome.

Euh, ak lu dindi mbooleem loo xamante ne luy def defile ci yow rek incha allahu taala ñu ngi lay diggal nga def li gàllaaj la goo xam ne des koy xool balan koo def ndaxte képp koo xamante ne ni def nga ko moo xam sa yaay la moo xam ku la jege ña ak xam nga yaay moom bu mu ba lim ko rek bàyyiwuñ kenn ndax yaay mooy ko gën a jege ci doomam ku la def lu bon loo xamante nii pour faagaagal la lu mu xëy def rek dana gont këpp ci kawam incha allah amul sax loo xamante ne nii maanaam lu ñuy laam-laamee la te dafa am mbir mu garaaw mu ci nekk noo xamante ni dafa yéeme lool ci ki nga xamante ni moo koy sang bu fekkee yéene na ko dafa am yéene bu yéeme yéeme bu ci nekk boo xam ne yow mi koy sangu boo ko yéenee rek jeex na waaw euh, moom képp ku la def lu bon rek lu mu xëy def la man maa la wax ne la mu gont këpp ci kawam ndax loolu lañ moom loolu moom mooy solo secret bi mooy solo si secret bi boo ko doon liggéey tey jii da ngay fexe nga lu bindulu euh, suratul masadin suratul masadin da mooy tabbat yadaa abi lahab boo koy bind nag dangay fexe nga bind ko juróom-ñaari yoon waaye juróom-ñaari yoon yëpp danga koy juutal yaakaar naa mosoon naa cee indi benn waxtaan waxtaan ci ci tabbat yadaa bu ñu juutal waaye bokkut bii nii ba tey Euh, lu baax rek am na lu ko gën a baax man naa wax ni bii am na bu ko gën a baax sax bii may wax ni sax am na lu ko gën a baax bu ko gën a gàllaaj bu ko gën a bon fuuf waaye ñun jàngale wuñ pour lor nit waaye dañuy jàngale pour aar nit bu fekkoon ne lu ñuy def nit la mu yàq ko kon du ma ko wane waaye lu nit di def ba aar boppam ba mucc ku ne sañ na koo wane euh, boo koy bind da ngay fexe rek nga tijji mbind mi bismi kun bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina walana muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallama boo pare rek nga daal di juutal tabat bi boo koy juutal nag da ngay commencer ci min masadin hablin fi jidha hatta bi hamalatan wa amraatuhu lahabin zaata naara sa yasla wa ma kasaba maaluhu anhu ma axna wa taba lahabin abi yada tabat ba ci arrahimi rahmanillahi bismi nga bind ko ba mat juróom ñaar yoon bu fekkee xamoo li meex boko joxe ko man bind dina ko bind ba mat juróom ñaar yoon ba pare mu tëjal ko ak fatih wala salaatu ala nabi bu la neex bo pare nga daldi ut reenu dogor reenu dogor dang ci fex nga ut ci bu dijji mo nekk ni bo pare dang koy dag da ngay fexe ba dag ko mu nekk juróom-ñaari dag reni reenu doogóor bo nga ut manam xobi kani xobi kani nga ut kani boko mun am xobi sax boko jiyé ci pot rek mu sax waaw bu jebee nga dag ci xob yi boo ci daggee nga def ko sunguf mo nek ni wa sunguf kani ba xob bi ne nii boo nga ut ren reni pouftan bo xamé dafa sax ci armel reni pouftan pouftan bo xamé dafa sax ci armel nga dag ren bi boko ko ba ba garab gi ko rek man nga dag ren bi dag ci lo neex nga def ko sunguf momit mo nek ni fekk def nga xobi kani yi moom euh, sunguf ba pare mo nek ni reni dogor bi mo nek ni waaw ah, ren bu dijji nga ci nga dag ko juróom-ñaari dag mo nekk ni ren bi mo ne ni boko dagge mo moo nekk juróom-ñaari dag mo nekk ni waaw legi bo pare nga ut ah, renu ngeeraan renu ngeeraan moy li ngay soxla bo sanko ba pare renu ngeeraan léegi euh, bo pare da ngay fexé nga jëm ut so bo xamé dana la mëna a sang rek lu ak benn fan rek nga daal di comp tuuti rek lu tuuti rek ngay comp lu jëru nga ci comp lu bari lu ko mooy sa bët yi dana yàqu tuuti rek nga ciy comp rek nga daal di def ci biir ndox bi comp ci renu poftan bi moom it bi nga defoon sunguf def ci biir boo paree nga mujjee renu doogóor yii nga dugal juróom-ñaari ren yëpp ci biir boo paree nga jël li nga xamante nii moom mooy euh, renu ngeer bi ngeeraan bi bu ko defee nga daal di natt ci lu tolloo ak sa baaram bu ndaw bi nii sa baaraam bi nekk sa loxo bu ndaw bi nga ko ci ba mu nga dagg ko nga dugal ko ci biir boo paree nga ut li ñuy wax picc seemin pecc seemin boo ko xamul mooy li nga xam ne gorkati matt yi dañ koy yor euh, di ko goree matt weñ gi xam nga ñoom seemin bi ñu yor xànq lay doon maanaam dafay nekk bant bu ko defee ñu daal di jël weñ gi daal di ko euh, euh, kii daal di ko seere ci xànq gi weñ gi ngay dindi boo dindee weñ gi mu des weñ gi kese nga daal di ut safara nga ko ci bam xonq cur bu ko defee nga daal di ko def ci biir bu ko defee nga sangu ci juróom benn fan lepp lu mu fekk ci yow fay dañ ta nak boo sangu na nga fexe ba bul ko sangu ci kër kër goko sangu mom ak lepp lu ñu mënoon a def rek euh, bo amul sens dal fu bërepp bob day yaq day yàq barab waaw waxuma la dara waaye luy dañ ci yow rek ci fofu lay dess kep ku koy sangu bok mané sangu ci fo xamanteni ni manam allah nang ko sangu ci allah waye bu ko sangu mukk ci fo xamanteni bërepp la bo xamni ni ngi dañ fa dëkk bok fa nga yëpp euh, légui bo paré da ngay fexé nga daldi di jël li yépp man nga ko sanni bo paré renu dogor yi ci nekkoon ak lépp nga sanni ko bam dess des bant ngeer bi nga xamante ni euh, ren ngeer bi nga xamné ne nattoon ko sa sank lañ bi bu ko défé nga jéem ko ëw dang koy ëw bu koy ëw nak nga ëwee ko euh, déru gaynde boo ko ba paré nga jéem ko tak sa ndig wala fu lo neex rek nga tak waya tak ndig dal mom moma gënal wa boko takké ji ndig rek nga tok di euh solo si manam képp ko xamanteni xeyna ci yow di def suba ba ngon jot wallahi la azim sa yu noppé rek mu këpp ci ko man ma la wax lolu gis nga ni nga xamne mom moom lañ dëppee tabbat yaddaa bi nga xamanteni ni ci min masadin hablun fi fii jiidiha alxatab amala amalatan nun ko deppé ba ci ar rahim ar rahman allah bismihi lépp lu mu def rek nun lay deppo ci ko ci lu amul ben sik nak incha allahu taala loolu laa leen ñëw ma baaxee leen ko am na yoo xam ne sa jurul wane waaye boo gisee ma di ko wane nekkul luy nit di def nit pour mu lor ko waaye looy def ci sa bopp la pour ku la def gis waaw nit nag sañ naa xaar boppam yir boppam fa tabarakallahu loolu laa leen mayoon maa ngi jégalu bu baax incha allahu taala ba beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh